mbokk site internet Adouna Buzz TV dal leen ak jàmm ci seen tënkum xibaar xoqatal ak bunduxatal nag wéy di gàllu ci dodd ki nga xamante ne moom mooy jiital opposition bi nag di Ousmane Sonko ginnaaw ki nga xamante ne moom mooy Ahmed Khalifa Niass daal di jóg rek ngir porté ko ngir mu waral nag mbir mu waral ni ñu mel nag jamono ji moo di ne dafa gis ne rekk dañ ko sosal ak violation yi nga xamante ne ñu ngi ko doon def ca tribunal grande instance ba nekk ca Ndakaaru waral ki nga xamante ne moom mooy docteur bi di Ahmed Khalifa Niass bëgg yóbbu ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko fa mbaxana doonee benn nag mbir mu nu mel jamono ji nag mu ngi koy ruumandaat beneen plainte bi nga xamante ne notewaat nañ ko moo di ne ki nga xamante ne moom mooy jege ñaale Ousmane Sonko yi rek dañoo daal di defa violation domicile ci kanamu tribunal grande instance ba nekkaat fi nga xamante ne moom mooy ca Kaolack jamono ji nag docteur Amadou Khalifa ñas pare na ngir liggéey boobu noonu waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay avocat am rek pare nañ ci lee dossier taxaw nañu temm na ngir yóbbu ki nga xamante ne moom mooy njiital opposition bi di Ousmane Sonko fa mbaxana doone benn bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi nga xamante ne mu nga jógee ko ca bureau bureau de presse du palais Almadina Almadiana